jërë ngeen jëf amee téléspectateur u People 221 ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di amati te jàkkaarloo waat ak yéen tey nag ñu seeti suñu benn frère euh, koo xam ne kenn dootu ko présenté ci réew mi mu di délégué Amar buñ ko waxee nag ku ne xam na digganteem ak Cheikh Amar di kilifaam di jëwriñam ku ne xam ne digganteem ak door Doro Gaye ku ne xam ne digganteem ak Wally Seck fas yéene Cheikh moom waxtaan frère dañ lay bàyyi waaw maa ngi leen di fay jëwrin di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay te jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal sunu borom yàggal ko te wéral ko ba naal yi mu am ci yoonu maamam ju sell ji Seexul Xadim mu matale ko di ko ñaanal tamit këru tarixa dina yëpp bàyyiwunu kenn Tijaan Xaadir Laayeen ña seen bàyyiwunu kenn di leen ñaanal sunu borom yàggal leen te wéral leen ci barkeb sëriñ bi di ñaanal sama sëriñ sama mag sama lépp Cheikh Amar sunu borom kàttanal ko dooleel ko ba yéene ji mu am ci liggéeyal ko sëñ Tuubaa mu yàgg ñu cee jiite ñu ànd kon moom. amiin jërëjëfati. amiin foofu noonu laay ñëw ban relation nga am ak kii di Cheikh Amar donte ku ne xam na ne kilifa la mais tey ndaw nga ci bu ñu lay xool ci âge yan relation ngi ñu am ba tey mu jël lu ci demee ni wàllu communication am euh, dénk la ko. Cheikh sama deret la. sama mag la. sama sama lépp la. sama sëriñ la ko mooy sama sëriñ. waaw ginnaaw bi sëriñ Saliou génne àdduna jébbalaatuma ci kenn ku dul ci moom. ndax ku am ngërëmal nitu yàlla am nga am man nga ab sëriñ. Mhm. waaw ab sëriñ la sax moom ci famille bi mu bokk. Mhm. sama sama deret la daal mhm. sama lépp la it. Euh, ma bëgg ko trop te ci moom sago. noonu laa mel. moo tax bu ko bu ko nit wokkee rek moom danga may da ngay jot sama jikko. waaw noonu daal laa demee woon moom. wax ci moom nag day xaw a ni ñu ni ñu mel moom daanaka day jël temps. dëgg la sama deret la daal. Mhm. ñoo bokk bàyyi ñoo bokk ndey. Mhm. ñoo bokk lépp. Mhm. Euh, fan yooyu ñu nemmeeku mu doon def benn anniversaire. waaw ci anniversaire boobu euh, ñu gis ni woykat yu bari yoo xamante ni daan na leen jàppale bi ñuy doog a door. Euh, ñëwuñu mu tourné gis ci kër ak Pape Diouf di woon bu bari. ah Pape Diouf bu demee foofu def na lu ko war bu demee tey ci anniversaire bu Cheikh Amar daa def lu ko war rek. ndax xam na fu mu jaar am na fu mu jaar Cheikh Amar en même Pape Diouf nit ku baax la woon parce que gisuma benn yoon muy wax ci Cheikh Amar lu ñaaw wala it muy muy critiquer Cheikh Amar. Mm-hmm. donc awma lu ma ciy wax lu dul rafet lu dem kam fa dem. Mm-hmm. Euh, Cheikh Amar nag moom nit la koo xamante ne nii que du du wax kat. Mm-hmm. waaye day xam lépp rek dëgg ci tànkam. te du xaaw yi sutura doomu aadama mukk waaw mais ñi ñu bari nag ñu ngi naan lan moo tax ni délégué maire ak Waly gis ñu fa absence Waly aussi. non waale njëkk a dem waale woote na. Mhm. waale xam nga mu ngi studio di répété amul temps. Mhm. mais woote na téléphone. Mhm. ne meeku na ko def na li ko war waale si amar ay diggante papa doom la. dëgg la <laughs> diggante boobu dara du ci am. dafa nekk fi dëgg ci ci waale boobu laay laay ñëw euh, waale yan relation la am avant may ñëw ci ay musiciens am yan relation la am ak ay xaritam ba souvent doo leen ci yenn détails waaw xam nga nit moom. bu la féetee fen da nga koy féete fenn rek. Mhm. nit bu la jàppee da koy jàpp. Mhm. xam nga waali moom boo ko jàppee rek mu jàpp la. Mhm. te it yaakaar naa ne li muy def ku nekk teg nga ci seen ba tey rek yaakaar naa may na benn tëggkatam ci gaayam mi. kenn oto dinaa ci ñëw. waaw bëggul sax ay nitam di sonn. fu bëgg tout le temps nitam yi di am jàmm. loolu nag la nitam yooyu wan. ba tax moom mu jàpp leen loolu. amaana digganteem la at nit yi. parce que waali ay goro ko seq. Mhm. soo dee xool ay góor rek ku seex. Mhm. ma ñëw tamit ci digganteem ak ak ak musicien mi doon na koo xamante ni day favoriser day favoriser ay musicien waaw da leen da leen taxaw da leen jàppale. Mhm. parce que ñooñu ñoo koy doxal tey ñooñu ñoom waali mënul dem sans ñooñu ñooñu tamit. at waale ay mbokk lañ boo dee xool ku ci mel ne mbay si Ndiaye ku ci mel ne Fallou Benjamin ak ñeneen ak ñeneen ñoom dañoo dem ba bokkal waale ndey at baay. te loolu moo am solo nit booy liggéey moom dangay ngay bokkat moom ndey at baay. da ngay gumba tox luur ci moom maanaam bu déglu benn wax doomu aadama buy jóge fële di ñëw di dem ci moom parce que yéen ñaar yéen a seeq liggéey tey teraanga ji ko am di nga am di ko joxe ci ñooñu nga àndal ba tax nga am teraanga jooju di ko joxe ko ñooñu waroo leen a ak dara waaw te it waroo sax xalaat benn yoon gis ñuy sonn ñoom waruñu di sonn tey Wally bokkut ak artistes yi may joxe sa tëgg sa kat tëgg ba pare nga jox ko 15000 ba 10000 muy lëfër lëfër yi xam nga Wally du def yooyu waaw tey tey bant comportement la la artiste war a am ak ay musiciens am parce que am na ci artistes yoo xam ne mooy mooy li ma la wax rek. Mhm. bokk ndey baay. Mhm. artiste bi. Mhm. at ñi koy tëggal dañoo war a bokk ndey at baay. waroo sax gis seen rongañ. yow artiste bi. parce que yow mënoo dem sans ñooñu. da nga war di dox ci lu leen neex di leen taxaw saa ne. waale ay tëggkatam ñëpp am oto amul benn tëggkatu waale boo xam ne amoo oto. waxuma la sax ay tëgg katam sax ay booy wi jëndi ndoxat yooyu sax am nañ oto. waaw kon kooku gàcce ngalaam. Mm-hmm. bokk tët artistes yi joxe ay quinze mille francs ba tax sa mm-hmm. booy yi di daw xam nga la. Mm-hmm. yooyu quoi nit dafa doy waar. d' accord dinaa ñëw foofu noonu ci daw bi. Euh, ñen ñoo daw wala mën naa jubal foofu direct rek. bu loolu ne la ma ne. Uh-huh. bokk tët yi nga xam ne. waaw non. mais waale nag ñu ko seex ay goor lañ fu nekk dem nañ fa dara foqul seen bët waale rek leen ñor fuñ demul ci àdduna wax ma rek waaram daal mais artistes yi daw. non dama ni waaram daan fan lañ demul ci àdduna. dem nañ fu nekk. est-ce que mus ngaa gis ku daw. parce que gisuñu lu faq seen bët waale rek a leen ñor. waale defal na leen lépp. d'accord tey tey tey buñ nee buñ nee buñ nee buñ nee ki daw jamono jii ku ne xam na ni man damay wax Sidi Diop moo fi dem événement. ambassade bi daal maa ngi koy envoyé maa ngi koy wax ambassade na jël ay responsabilités am. Mhm. parce que lii lu garaaw la ah. dix personnes yu jóge daw duggu mbay ngi naax saay. Mhm. day yàqal yeneen artistes ci réew mi te day yàq deru senegal te gaa yi buñ ko nëpp nëppal di bàyyi noonu ngi seet de man dinaa ci dox dinaa ci dox ba ambassadeur jël ci ay responsabilités ñooñu lan nga jàpp ni moo tax ñu daw. waa sonn. sonn. fanaanee tëgg ba ngoon ñu jox la quinze mille francs nga xëy ndékk ci jënd ci añ lu ciy des. Mhm. ah mais soo gisee bunt pour gis leneen da ngay daw sëñ bi. mais ñoom Sidi yóbbu leen suba teel moo leen yóbbu. ci label bi label la daa affaire daw laa ne. tudduma ma Samba tudduma ma Demba. Mhm. affaire daw laa ne. nit ki yóbbu nañ ko Italie gis na lu ko doy daw na dem yoonam ful la dong laa ci gis man loolu ñu def. Mhm. waaw. Mhm. parce que label bi moo leen yóbbu. ci programme label mooy suba fuy suba teelu yàlla bi am wala. suba teel suba teel mu taar jëpp suba teel sa xarit. man suba yàlla laa xam mooy suba teel at fajar teel. Uh-huh. jot suba teel mooy heure yi ñuy dem marché dem dem yooyu noonu loolu daal laa xam. suba teel nag bu jëlee ay nitam yóbbu leen fële réew ma. Uh-huh. ñu daw ay responsabilité bopp suba teel la. Uh-huh. mooy suba teelu yàlla. comprendre nga. li ci yoon wax li ci euh, nuñ koy wax ambassadeur bi da ci war a jël ay responsabilité am xam kii yor responsabilité boobu. mu teg ko ci yoon. mais léegi lan mooy différence. lu garaaw la de li ñu def nii. Hmm. yéen a ngi koy xeeb nii mais lu garaaw la de. Hmm. te état bi war na ci jóg. mais lool lan la mën a ministre sax da ci war a jóg. lan la mën a yàqal artiste. tey ma ngi mel ne tey jii man may way dem di déposé visa pour Italie. Hmm. bu xalaatee na am na ku ñu fi mayoon ñëpp daw duñ ma may. dañ naan ah kii Sénégal lii lañ mel Sénégal koo ci may visa ñoom ñëpp dugg mbay loolu la mais bi nga yëgee nii daw bi am na euh, yow bett na la wala bett la. non daw bi moom xam nga boo nekkul ci dëgg. Mhm. yàgg yàgg sa da ngay da ngay da ngay daanu rek. xam nga daa daa dañoo nekk groupe boo xam ne dañoo nekkul ci dëgg seen ànd gi dëggu lalu ko. waaw suba teel ànd rek ñoom. Mhm. xaw ma ñu mën di doon. Mhm. comprendre nga nit booy ànd nit te dëgg lalu ko rek su yàggee da ngeen ni da ngeen ni daanu. te yaakaar naa ne daanu bi am na. ndax am na ñuy jóge foofu bàyyi nañ. ñi ñi géré woon base boobu ñëpp dem nañ. comme ku ci mel ni The Best maa ngi dégg nii bàyyi na. waa je best maa koy nuyu ku baax la moom it dégg naa bàyyi na fi muy liggéeyee yàlla na ko yàlla taxaw mu am leneen lu gën fi mu nekkoon. mais lan muy waral problème boobu noonu ñu koy dégg ci label boobu euh, te ñaare bëriwul lu ñu koy dégg ci Faramareen yi. boo nekkee njiit te dëgguwoo daal say employé dañu dem bàyyi la loolu man de foofu laa ko teg. Mhm. wax la nag. lan mooy difference su ñaari label yi donte Faramareen du label. non man sama labelu bopp daal xam naa ne mu ngi ci yoon wi. Mhm. muy Fajartel musique te it xam naa ne ñi daw ñëpp. ku ma ci mën a récupérer dinaa la récupérer indi la Fajatel musique maa ngi ci yoon bi léegi mu taxaw incha allah <laughs> waaw maa ngi lan je baisse tamit bu bëggee incha allah ñu liggéey man dinaa ko proposer ay yoo xamante ne nañ ko mosu ko am fenn dinaa ko jox lépp loo xam ne ay wàccuwaayam la. Mm-hmm. ci Fajatel musique. mooy mooy Faramareen. non sama bos man. sa bos waaw. Fajatel musique gi ma ubbi. Mm-hmm. damaa ubbi label bu tuddee ko Fajatel musique. Mm-hmm. di récupérer booy yi dawat booy yi rëccët booy yi ñuy fay 15000 may récupérer leen di leen fay koppar yu am solo ñu liggéey. kon da nga jàpp ne yow ñoom problème mu moyen ak ak. ñàkk ca la bokk da ngaa a gis waale yóbbu kenn mu daw da ngaa mos a gis Youssou Ndour yóbbu kenn mu daw parce que dañoo lañ warloot ak ñoom dañ koy mattale ba mat sëkk ak dafa foor sëñ bi tëgg dafa metti imagine di lëfër lëfër yi 2 heures ba 5 heures nga koy tëgg di am 15000 francs sëñ yow tey jii boo doon tey di yor micro suba bu ngoon ñu lay jox 15 mi doo mm-hmm. léegi léegi yow nga ni da nga a taxaw pour pour récupérer leen ñoom. sama label bi daal fajarteel gi mm-hmm. fajarteel musique gii mm-hmm. booy dawat booy yi booy yi fàqat ñi ñu fay 15 mille ñëpp lay récupérer. incha allah. <laughs> tey mën naa ci cité ku ci mel ni ki ci ki ci ki ci nit ñi gën a xam mu di njàpp <laughs> tey demu njàpp. fu ñu ko doon jàppee. <laughs> non njàpp njàpp mooy fecckat mooy borom borom dend bi. Ah, eh, fu mu bokk moom <laughs> daa daw. <laughs> mais daa daw du yomb njàpp moom njàpp moom du yomb njàpp <laughs> moom du yomb njàpp de. mais tey lii lii lii lii lan la mën a ban impact la mën a indil musique sénégalais. mooy li ma la wax rek dañuy yàqal maanaam tey jii ministre bi sax da war a jël ay responsabilités mm-hmm. parce que culture Sénégal la suma ma jumul. Mm-hmm. Ah? Mm-hmm. Euh, lu tax mu nekk ay ministre bi war ci jël ay responsabilités mooy. culture Sénégal moo demoon tournée. ñu jël ambassade bi may ay doomu sénégalais visa un mois. pour ñu dem liggéey ñëwaat. ñu jaaree foofu dugg mboy gi tey yàqal nañ artistes yoo xamante ne nii tey bu ñu bëggoon visa pour mu am visa Italie dina jafe ci ñoom. Mhm. xam nga tey groupe boobu ki jiitee benn groupe bu naan xaw ma lan. ki ko jiite yaakaar naa ne Europe sax du fa dugg te ñun bëggee visa Europe dañuy dem ñu may ñu visa ñu dem Europe amuñu fa sens interdit. Mhm. États-Unis rek la mën a dugg. Mhm. comprendre nga. Mhm. kon yooyu tey jii ay pexe la yoo xamante ne yu ndoon lal la rek damaa dem ba jàpp ne business da cee am ko waaw léegi nag ambassade bi na jël ay responsabilités am ci lii. ambassade Italie na jël ay responsabilités ci lii. te xam ne lii du rafetul du dëgg du yoon lii gaa yi duñ ko nax naxal nii bàyyi dañ ko wax gars yëpp jël seeni seen i parce que lii dafa yomb ah. Mhm. day yàqal ñeneen ñaa loolu foofu laa ko teg. Mhm. mais mënul indil kii nga xamante ni mooy acteur bi di Sidy Diop ay jafe-jafe. non artiste bi xam nga kooku daa dem wayi rek kooku ay nitam la am moom contrat la am suma ma ja jumul ki ko yóbbu gis nga ki jiite loolu rek mooy responsable. Mhm. ki jiite mbir mi kooku mooy responsable bi waaw. tey du ñàkk conseil boo xam ne di ko jox di ci lii nga xam ne jot na fee xew. non xam nga Sidi maa ngi koy conseiller man sama fajarteel musique gi bu taxawee mu ñëw ci ma jël ko <laughs> man tournée yi mu bëgg yëpp dinañ ko def at sunu label bii di fajarteel musique. Mhm. tey Sidi bu ma ko jëloon indi ko fajarteel musique yàlla xam na ne dina gis avancement ci boppam. lan la manqué. li manqué bëri na sa waaye kay li manqué bëri na trop sax. ki ki dégg naa ko yoroon guitare gi njëkk dugg mooy gi kooku xam <laughs> nga guitare bu duggee mboy gi yaakaar naa musique dootul neex. <laughs> kon yow kon yow ni ma la déggee dafa mel ni da bëgg a samp sa sa sa label pour jàkkaar sama label maa ngi ci yaakaar naa affiche yëpp defar nañ ko ba pare kayit yi moo ci des ma dem signé kayit bi mu génn ma commencé jël booy yi ñëw liggéey booy ñoom sii déet ñooñu. moo tax lan moo tax yow demoo jëli yeneen label mais nga choisir nga choisir Subatel. non Fajartel musique laa sama bos. waaw sama bos laa. wala moo tax moo jël yeneen artiste nga choisir artiste suba teel. non ñoom ñoo bàyyi foofu yaakaar naa foofu daa tas est tasul ki yoroon affaire bi moo bàyyi di <laughs> ki yoroon mbir mi bu bàyyee foofu dootu amati njariñ te yaakaar naa moo yor mbir mi. Mhm. the mhm. kooku nag kaay ma kooku kàngam la de kooku bu bàyyee gars yi dañuy. non man xawma kooku. Mhm. the best daal xam naa ne bu roccee koo moom mbir mi yàqu. moo yor affaire yi de. ñee ñi ci des moom dañuy ay politique dañuy dóor musique xaalis moo koy def. ñoom dañ ko manqué. bu amuñu ko dañuy ñaan rek ndimbal fa wasaab bi rek la dundee wasaab bi xam nga booy dundee wasaab bi xaw ma wasaab bi xaw ma loolu dañuy dundee rek. et pourtant suba teel ku ne xam na ni. la musique daal xaalis moo koy def foofu laa suba teelu yàlla gii nag moom. suba subateelu yàlla gii. Mhm. xam nga teel ñëpp ko moom amul ku moom subateel. Mhm. bañ nañ ko ba ñoom seen subateel daa am lu ci laxasu leneen am na beneen tur. musique loolu concerné wu ma man sama suba subateelu yàlla laa ko jàppee sama fajarteel nag man sama fajarteelu musique la. Mhm. am nañ xaalis ay xale te mën nañ liggéey nekkuñu ci ay pexe. waaw tey kun directeur directeur bu fajarteelu musique boo duggee këram bu la laa toogal nga sa war a toog bokk te yeneen kër yi nga xam da ngay toog di xuusat yooyu noonu. dafa mel ni sax kër googu jot nga fa dem ba xam la fa nekk. waaw foofu daa am na kër yoo xam ngay xuus de <laughs> pour mën a dugg ci biir kër gi lañ ci yàlla mu ah, ndeysaan. Euh, mu laa mar de maa ngi nii. Mm-hmm, mm-hmm. Mm, du ma tooñ nag waaye moom xam naa ne ku dugg sama garde moom. Mm-hmm. jot dëgg. du ma nag. sama laam yi maa ko kenn moom ko. showbiz lañ nekk. am na it. showbiz ni ko ni ko mais naka nga gisee sa sa sa sa ñëw frère Omro bi <laughs> Faramaren. daa ñëw këram <laughs> affaire bi wiiri wiiri jaari ndaare ah, daa ñëw këram rek. Ah. Omro foofu la bokk. Mhm. xam nga am na way bu Youssou dem boo demee ba xamatoo fi nga jëm. dellu fa nga jógee. loolu kese la. Mhm. muy affaire yi moom. Mm. waale moom ma ngi feet saay saayam rek waaye da ngay gëdee <laughs> waaw affaire moom sawaay mm-hmm. ñu gën a rek. Mm-hmm. di tamit sunu PDG. Doro Gueye fa laa jëm. borom xippil xool. Mm-hmm. ku nekk gis na ne li fi Macky Sall def muy liggéey. kenn du ni Macky liggéeyal. nit nag loo ko bañ bañ bañ bañ waxal ko jikkoom. Macky tamit liggéey na. Mhm. jàmbaar la. Mhm. ñu gis Dodo Gueye social yi mu nekk di ko def ci réew mi. Mhm. tout le temps ma ngi def ay social di dimbali ay nit man dama ciy teg sama bët. man mii rek li ma li may li jaar ci man ay nit ay malade yoo xamante ne nii que ma envoyé ordonnance ba ma yónneewaat ko Dodo. ci saa si lay réagir. ñu jëli ñooñu yóbbu leen hôpital faji leen. plus de ay millions la ciy frais def ko ci malade yooyu noonu. mooy kooku ku jar a jàppale la. dëgg la barki démb rek dafa am ku ma woo fekk benn handicap la ne pousse pousse a bëgg ma jël affaire bi transféré ko ko ci saa si la réagir dem jëndal ko pousse pousse. benn maire boo xam ne ñu ngi ko waroon a opéré plus de xaw ma ñaar cinq ay quelques millions. te kenn xamu ko de moom du ko wax. ma envoyé ko door a réagir ci saa si. ñu dem faji maire boobu ci ay cinq millions et quelques est ce que loolu siiw na. yooyu moo jar a fësal. Mm-hmm. yooyu moo jar a kuy def lu baax bu bu bu nekkee di def lu baax da nga koy fësal. te Doro tout le temps ci social lay dox. moom daf koy wax ku am malaat bu tawat te waxoo ma ko rek mere naa la. waaye kooku kon ku jar a jàppale la. président Macky nag ku mel ne Doro Gueye ñoo war a nekk ci wetam. Mm-hmm. di ko wax dëgg. Mm-hmm. di ko wan ne ko nii la at nii at nii dañuy mm-hmm. taxaw nit yi. vraiment maa ngi koy siyaare bu wér. di ko mm. wax ne fii mu teg tànkam foofu rek la. gis ngeen li mu jëf ci 2022 bi bëri na. ay mm. xel kom at yeneen at yeneen gàmmu màggal bi sëñ Muntaxa kii ki mu mm. yóbbu ci sëñ Muntaxa bëri na yoo xam ne ma ngi koy jëf ci réew ci réew mi. Mm-hmm. donc ñu ngi koy ñaanal suñu borom taxawu ko. Mm-hmm. at ki euh, kiyam bii di xéppil xool sunu borom jàppale ñëpp ña fay liggéey. Mm-hmm. ba yàlla may leen ndam ci lu ñu am ci réew mi ndax moom jàmmam mooy réew mi. moom li muy dox tout le temps mooy lan réew mi di am jàmm ñépp di am jàmm. te ndaw ñi tamit am métier. dëgg la Doro Gaye tout le temps ci loolu lay communiquer. na ndaw ñi am métier. Hmm. na ndaw ñi di liggéey. di jënd ay moto di jox xale yi gars yi di cek cek loolu ci loolu rek lay liggéey. kon donc ñu ngi leen koy ñaanal di ñaanal waa wax waa réew mi ñëpp pour ñu ñaanal ko suñu borom kàttanal ko dooleel ko. ba lépp lu di gàllankoor bañ a yegsi ci moom. ci barkeb Serigne Saliou. amiin jaajëfati. mu ngi noonu ah moo nekkoon sama invité day nekk ku disponible vraiment. waaw di di di gërëm tamit Adama Sylla hmm. madame di soxnaab Cheikh Amar di ko ñaanal suñu borom yàggal ko te wéral ko. amiin di ko wax ne yàlla na ko jàmm solo rek. allahumma amiin loolu loolu mooy moxtaar mi. voilà ngi jëfati. mu ngi noonu ah moo nekkoon sama invité xat na trop mais fexe na ba boole ma ci programme am. waaw euh, di ko di ko jaajëfal ah vraiment euh, di leen jox yeneen dig daje. te sunu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf. Ah. jël leen. ñun daal yor yor waaw damay ubbi benn yor communication ah, yor communication. <laughs> amul benn problème sunu. waaw ah, incha ngeen jëf mbokk yi